Bienvenue sur Salam Vision. man ku ma gën ngir taxulaa gën ngir Mamadou Lamine mooy sama gën. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. soppi Seydina Mouhamadou. léegi dañuy nuyu bu baax di leen ziara. tabaaraka laa seen gisee gi nag xam ne am na lu xew. lan moo xew. ñenn ci ay ndaw yoo xam ne ñoo jóg pour liggéeyal yàlla pour liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooy ñan mooy seen cadre mooy jàpp joxe bu ñu te set ñoom bu wootee seen bés bu rëy boobu bés bu yàlla bésu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fas yéene fa concours alquran karim nga xam ne tabaarakallahu téere bi yàlla jox bi li mooy alquran karim fas yéene faa ñu yonent bi alayhi salaam fas yéene faa tagg Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ndaw yoo xam ne jóg pour liggéeyal yàlla pour liggéeyal Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ndaw ñu dara bàyyi xel leen ndax ndaw yooyu lañu soxla ci réew mi ndax ndaw yooyu lañu soxla ci suñu société bi ñooñu nag ñoo woote seen bés bu rëy boobu seen bés bu mag boobu mooy le premier incha allah bi ñu dem ca le deux kon bi ñu dem incha allah ca parcelle unité sept incha allah. ñu ngi ciy invité képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadu rasuulullaah ñu ngi koy yëgal waaw Salam Vision ñu ngi leen koy yëgal ñoom incha allah dina ñëw ci bés ba tabaarakallaa ñu jox suñu soppi xarit ñoom ñu ngi leen di soppi nga xam ne lay bàyyi xel Salam Vision ñu yëgal leen bés bi. waaw di leen di leen siyaare bu wér sëñ Mouhamed. Mm-hmm. di leen siyaare waa Salam Vision. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek seen kàddu. Mm-hmm. di leen yëgal euh, bésu jeune Kaale jàpp joxe ba nga xam ne le 2 mai lay am. bii nag di conférence bi nga xam ne mooy cinquième édition bi. leen ci woo yéen ñëpp te kiñ ciy waxtaane mooy sangu sang yi ñu ñuy delloo njukkal la dina amaale concours alxuraan di ci woo ñëpp daal di leen ñamaale ay ndogu tamit ci déwén ndogu ñuy wax ñëpp daal ñëw teew bés di la demee incha allah lan ngay laaj bés boobu waaw li ñu ciy waajal loolu na ndaxte bu ñu nee Oustaz Mouhamed moo koy moo koy moo koy conférence xanaa loolu la ko incha allah tarixa yëpp ñu ngi leen ci woo ndax ku nekk dina am représentant bi nga xamante ne dina fa am lu mu fa def. waaw di leen wax daal ay eh, digis bokk si la loolu ñu ngi woo yéen ñëpp incha allah. kon tabaarakallah xajam jooga ñu ngi woote la dee incha allah. parcelle unité 7 tabaarakallaahu soppi Seydina Mouhamed yi ñu leen fee invité man oustaz Mouhamed Niass soppee na bi borom keppaar Seydina Mouhamed incha allah maa koy def maa ngi ci invité mbooleem koo xam ne soppi yonent bi rek la comme ni ñu ko waxee tariqa yëpp ci biir incha allah tànkatu yonent bi ñun la ñu invité ci bés boobu waaye nag kan mooy parrain bi. Mhm. Mhm. allah. kon tabaarakallaahu mi ngi noonu yàlla yaa defal jàmm ci barke yonent bi alayhi salaam ñu fekkee jàmm am ak tal ànd ak fekkee ngeen am jàmm ñi am jàmm ngeen am sutura ñi am sutura ci barke yonent bi salaam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man ku ma gën ngir taxulaa bon ngir Mamadou Lamine mooy sama gën